ñëwaat ak yéen comme ni leen koy toppale lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci làmb rek mbokk yi nañ leen ko toppal waaye rawatina jëmm ji nga xam ne moom la ñu jàkkaar lool kenn dootu ko présenté bu ñu ko waxee Bébé Elton bàyyi nag moom moo xew moo def lu kenn defut sangu rond point Sandaga ah. nga xam ne vidéo bi mi ngi viral ci internet bi foo partout dans le monde Elton ñoo ngi lay nuyu di la ziar waaw makan maa lay fay onze billah bismillah inna wala yàlla jërëjëfe Serigne Touba jaaraama Cheikh Ibra Fall ginnaaw bu ñu sante yàlla julli jonti bi e maa ngi sant suma ñaari waajur di sant suma seriñ sëriñ sëñ Ousseynou Mbacke mu sëñ Atex di sant Fallou Lava si nga ma fekk nii di Fallou xama nekk nit ku baax booy moo leen di laabel seen moto en plus mécanicien moto la day jaay ay moto xama macha allah nit ku baax la quoi suma xarit la suma lépp la may ñaan waa Sénégal nañ ko jàppale parce que ku yokkul da ngaa te nit ku baax la quoi moo nekk nii sama ginnaaw fu ma jëm maak moom ñooy ànd moo jugee suñ kër rek fii laay ñëw parce que moom moo mel noonu ci man di nuyu kilifa diine kilifa aaday di nuyu waa Géejawaay waa Lac Rose waa ñetti mbaar fépp fu supporter bébé Elton nekk rawatina borom peel bu ndaw bi maa lay siyaar di la béyee. nga def vidéo boo xam te ni mi ngi viral ci internet bi sango rompoy Sandaga ñi naan lu ko sëriñ digal la ñi naan lu fexey boppam la lan moo tax nga def vidéo bi lu ñu la digal la woon. waa man làmb làmb daf ma jaral. parce que boo demee ba àdduna wërngal këpp ñëpp bëgg la lépp looy defoon nga koo xoolaat man làmb dafa ma jaral waaw dafa am dama am famille dan ma yaakaar sama yaay mag la da waa ma am ay mag yu jigéen ay rakk yu jigéen ñu yaakaar ci man kon déjà lépp lu ma man làmb du ma ko caaxaane lépp lu ma digal ci làmb dama koy def man man Bébé Elton borom peel bu ndaw waaw loolu maa ngi sant waa Saalum waa reefan waa Réfan boox waa Kaba démb euh, damaa xëy six heures du matin benn kilifa gu mag woo ma yaa may dégg ni ma ñëwal reefan léegi loo jàppoon nga bàyyi ko nga ñëw ma taal suma moto dem foofu mu jox ma gàllaaj ni ma carrément defee ko ni ma la ko waxee ma ne ko nan laa koy defee mu ni ma demal ba rond point bu mag nga sangoo ko fa affaire yooyu. waaw. ëpp coow wala li man man bu mag lan ma wax te Sandaga mooy rond bu gën a mag ci Sénégal waaw ma man lu ma làmb lu ma ci diggal dama koy def makan moo ni ma carrément boo demee ba rond point Sandaga boo fa sangoo ba pare nga julli ñaari raak ñaari raak yi Sénégal na julli war maa julli war ta def yaramu ne ni ay seetu commentaire man tegtal la tegtal lan ma jox ki la jox bagaasam ne la carrément nii nga koy defee su ma waxoon neneen laa koy defee noonu laa koy defee waaw lamb barke Serigne Touba ma dóor pëlise parce que làmb daf maa jaral li may wax naan dinaa fi dóor mbër mu dee loolu lu ma gëm la sama objectif la man maa bëgg a dóor nday mbër fii mu dee ma jël sama peel bu mag beeg bu ndaw bi wax ba mu xool neuf mètres ci suuf ma suul ndeyam waaw. ba saaga dinaa lay seet dama koy suul dama fi fii dinaa fi dóor mbër mu dee ma suul ko parce que man 4 mètre 50 laa mesuré sama loxo bi 3 mètre 95 man namp 9 ans waxuma la 9 mois de 9 ans laa namp sama lëngëru biir bi 9 mètre la dugg ci biir 9 mètre sama largeur biir bi 4 mètre 40. waaw sama xaru tabaski nag dama ko rey fees ko ba pare mariner ko dugal ko noonu ci biir bàyyi machine bi def liggéeyam fii dina fi dóor mbër mu dee ma jël sama peel bu ndaw beeg bu mag bi. mais jaaxal commentaire bi maa ngi dégg ñaan état wu bi war nañ war nañ ko jàpp te bi ngay sangu ci rond point bi dañu gis ay policier taxaw lan la policier yi waxuñu la dara bi ngay sangu. waaw policier yi man lan faral borom peel bu ndaw bi ñëpp koy bégee maa ngi nuyu adjudant Ngom maa ngi nuyu macha allah xam nga euh, euh, commandant Grand Yoff bi maa ngi nuyu commandant Bachir Tiwaan Pël gars yi dañ maa bëgg man policier yëpp ma bëgg barke Serigne Touba parce que Sandaga bi ma demee foofu loolu wane na ko parce que policier yëpp dañ doon def seen liggéey mais macha allah dañ ma bàyyi apprécier ma bàyyi ma def sama liggéey parce que lu ma diggal la ci làmb. ma seen bi nga sangoo ba pare. waaw. ma ma ñu yóbbu ma ci commanda bi ma yóbboo ci commanda commanda bi nekkati borom peel bi rek lay topp dani ma borom peel bi ñëw na dina fi ray nday mbër lii la wax. commanda bi moo wax loolu. ma feccal ko loolu. dina fi ray nday mbër ma feccal ko loolu mu ni ma lan moo euh, beneen gaan bi ma jàppoon mu ni ma lan moo tax ngay def lii ma ni ko dama am combat dan maa digal ma sangoo lii te lu ma digal dama koy def commanda bi daal ni bàyyil borom peel bu ndaw bi. ma ni ko borom peel bi yow yaa nar a tax ma dóor fi mbër ba mu dee jël sama peel bu ndaw bi wàqe ba mu xóot suur ko ku la bëgg amoo fay man sénégalais yi ñëpp ma bëgg maa ngi bég ci ñëpp di kontaan ci ñëpp di leen wax làmb daf ma jaral ndax dama war a teral sama waajur ci làmb barke Serigne Touba teral sama fam waa taxaw na Baye Ndiaye tëgg na ko mais maanaam tey ji amagul dat waaw waaw di wax am na combat am naa combat Baye Ndiaye tëgg na sama combat maag Cheikh Niang combat Ama Baldé Gris la ñuy xaar mu jàll ñu def première présentation bi waaw première présentation bi waaw xamali mala léegi maa ngi woo ñëpp nag la trent la 30 jour combat Ama Baldé Tafa euh, euh, euh, Gris Bordeaux ñooñu ñooy samay naataangoo cour des grands laa dugg barke Seydina Mohamed dinaa ñëw samp dinaa ñëw bàqu ba mu neex génn sama ñaari peel yu ndaw yi moom laay indaale esat ba pare damay dama leen di sampal ndënd ñoom ñaar barke Serigne Saliou Mbacké dama leen di sampal ndënd war ni leen làmb xalee ko moom làmb yëfi xale la mag yëpp laa fiy jëlee dinaa fi dóor mag mu dee ma jël sama peel bu mag beeg bu ndaw bi wax ba mu xóot 9 mètres ci ma suul ko. mais solo gaa peel bi ñëw na foofu idée bi fan la jógee borom peel. bi idée bi dama dama dóor euh, euh, ki mu mujjee bëreel deux mille si mu daanu. ba lok protestant bi arbitre bee ko jàppale da doon faatu yàllaaw moo tax léegi du ma fi bëreeg benn booy di ko rey. cour des grands la dugg échange seen biir déggoo li ma képp kuy VIP. képp kuy VIP ba mu des waa Géejawaay barke Serigne Touba xaaral sa wàll mi ngi ñëw peel bu ndaw bi am nga ci wàll am na ñoo xam ne peel bu ndaw bi peel bu ndaw bi laa leen di suulee am na ñoo xam peel bu mag bi laa leen di suulee waaw waaw tafaatin moom tafaatin kooku man maa bëgg a bëreeg moom man tafaatin laa man maa Balla Gaye da koy duma daan ko mu ñëw ma daan ko te Tapha Tine tey tey tey bu ñu bëri woon tey ma daan ko képp ku daan Elton sama tooma jàppal ni revanche bi man maa koy fay. ñoo ñëpp ñëpp la maasaale képp ku daan Elton. Elton maa ngi koy dégg maa ngi koy nuyu passage mu ngi États-Unis waaw ñu ngi déggante waaw waaw mu ni ma jàppal dina baax waaw moom grand bu baax la. mais mais mais Elton Elton fit am lu kenn ñemee te def nga def ko man loolu ba tey sama problème. déggoo li ma dama ni man làmb daf ma jaral barki sëñ Touba ñi ma xam dëgg xam na ni làmb daf maa jaral làmb daf ma jaral barki Serigne Saliou Mbacke ndax dama war a tekki ci làmb dimbali sama waajur ñi ma yaakaar dafa bëri barki Serigne Saliou Mbacke ma fi yaa bu diis la am àdduna ñooy topp borom peel bu ndaw bi fu ma romb ñu naan ma borom peel bi borom peel bi ñëw na bébé ñëpp ma bëgg aw ma noonu waaw barki yàlla bu ñëpp bëggee nag da liggéey maa ngi entraîné guddeeg bëccëg mbër mu jàpp ni entraîné wu ma yaay nax sa bopp fii dinaa fi dóor mbër mu dee ma wàqi ba mu xóot jël sama ñaari peeli bu mu mag beeg bu ndaw bi wàqi ba mu xóot suul la. mais démb bi nga sumee ko moom Sénégalais yu bari nungul nañ état bi nee nañ ñu bari commentaire yi Elton liggéey na Elton liggéey na. damay liggéey damay liggéey 300 maanaam bu may bu ma demee saal li may yëkkati poli bi dama koy vider. dama koy vider ba mu jeex poli. am ci vingt quatre série vingt su may épaule damay damay duy épaule ba mu fees ñaari quarante cinq lay roof ñaari quarante cinq waaw sama loxo yi macha allah dafa am dool lekk alimentation bi mayga bi non bàyyi ma xoolee man dafa am ku ma yor mayga spécial dafa am ku ma yor mayga am ku ma yor hamburger am ku ma yor tere waaw mayga bi kii moo ma yor fàllu laveur moo ma yor sama laveur bi lekkul dara bàyyi ma waaw moo may jox ma ma xool li may li may lekk sax dama ko yokk spaghetti douze mille laay jënd spaghetti douze mille cinq cent neuf neuf neuf hamburger non yaa ma jël pomme de terre baxal neuf mille pomme de terre frite neuf mille douze omelettes neuf nenu baxal mayonnaise deux mille cinq cent ñaari bitéelu ketchup lii laay consommé bu fekkee lool loolu laay lekk loolu laay consommé non déggoo li ma la sama biir bi neuf mètres la xóot ci biir loolu yëpp mën naa ko jël dugal moo la non non yaa may dégg bu fekkee dama dem ci hamburger bi quatorze hamburger laay jënd quatorze hamburger xama quatorze hamburger nan ko essayé nan ko essayé léegi xama añ naa ba pare 7 eh, kilos ceeb laa lekk instant yi 7 kilos ceeb laa añee 7 kilos ceeb bool bu mag lañ ko def yow xam nga ñoo bokk añ léegi gis nga 7 kilos ceeb laa lekk kuy lekk 7 kilos ceeb 14 euh, hamburger jaaxalu la man damay entraîné ko raba lay lekk loo non damay entraîné xale bu ndaw laa 2012 laa judd 2014 bi 2024 bi laa am samay 13 ans dinaa fi door mbër mu dee. 2012 laa juddu. 2012 2012 laa juddu 2024 bi laa am sama 13 ans maag boo yi ñoo maase. dinaa fi door mbër mu dee ma jël sama peel bu mag beeg bu ndaw bi wàq ba mu xool suul ko. waaw loolu lu ma gëm la sama objectif la. lu kenn mu sa def ci làmb lii laa bëgg def ci làmb man. Ah, mais mais ñu jëmaat la 30 ci bis yu mat. en tant que mbër nga war a analyser diggante Ama Balde ak Gris ñaari mbër loo ñu ci mën a analyser Ama Balde. waaw parce que làmb euh, Ama Balde sunu frère la euh, Gris sunu frère la macha allah ñoom bu ñëwee ci làmb ñëpp bëgg a bëre ñoom parce que ku ci ne allah mooy loolu foofu moom jaaxal naa lay tëddee damay ñaanal que le maire gagne mais ñoom samay adversaire la. te jour ba dama leen di sampal ndënd. Gris Bordeaux Ama Ama Balde dama leen di sampal ndënd Baye Ndiaye euh, ku ci ne jox na la sama avance nga téye. lu garaaw laa lay wax dama leen di sambal ndënd ñëw taxaw ñu bëre danoo war a bëre maa ngi dama war a bëreeg Ama Balde dama war a bëreeg booy Niang dama war a bëreeg Eumeu Sène mais ñooñu ñoo ñooñu defuñu ci làmb. dama ne dofoo képp kuy takk ngeen mu bëre bëgg bëgg naa bëre ak ñoom. mais mais mais mais mais ñoo def ay maanaam lu tax ñu xale yi bëgg a bëre ñoom parce que instant ni maanaam ku maanaam kii lañ wax léegi maanaam booy la ñuy may chance waaw booy yi ñuy may chance dañ ma cee war boole. mais yegg a góof. yegg naa fa kay sama parcours dama fee dóor mbër ba mu gaañu. Ama Baldé guy guy gi Ada Fass loolu ci. waaw combat bu neex la ñuy ñaanal sunu mag guy gi sunu grand frère yàlla na dóor kii mu daan di jàpp. fi ray nday mbër seen loxo ca kaw Bébé Elton a ngi e xoolal am na lu fi xew man dinaa ko wa Elton ñëw na Elton ñëw na na la la la la la Elton ñëw na Elton ñëw na Elton ñëw na abi ligi la xaasa Abigi la casa gire. Abigi la casa gire. Abigi la casa gire. Awa iye, aha iye. Abaga zigile, zigile. La la la. Xoolal borom peel bi ñëw na. Dina fi ray nday mbër. ñu dem yow doxal ma taas. gin doxal taas ma taas. ginn doxal rambax giis sal rambax rambax giis sal gura gi daan tama saakin giis sal giis giis giis giis giis giis giis giis giis giis waay doxal ay doxal kii mooy elton kaay waay doxal la wiyaay doxal ras mu ñëw yow dëgg neexul bu la fekk ku baax seet ku bari jom jamono juñ toll nii géejawaay amul star mooy sunu star géejawaay amul champion mooy sunu champion ragal féete day xañe wër ngay doomi gunaas di doomi géejawaay nga xew ci jamono ju bu rëy ndey ak bàyyi fulla ak fayda borom li yàgg nga ma koo jox li yàgg nga ma teral barki Serigne Saliou Mbacké man maa ni la kii mooy bébé Elton kii ci mooy borom peel bi mbër bu ko moytuwul daa lay rey nga dee doxal rambax giisal rambax rambax giisal guro gi dan dafa saxin giisal giis giis giis giis giis giis giis giis giis giis way doxal way doxal la way doxal nii wuyaay yow doxal way doxal tu fi ambiance nañu barke yonent bi doomu réew mi waaw di sant Diop Tissi. waaw marché bees. barke yonti aw ma fayam. sama papa la lu nekk lekkul dara bàyyi ma. barke yonti bi di sant Maysa sant yàlla butik. di sant Ousmane Niakh borom marché Dior. di sant Ndongo Kolobane. di sant Ala di sant sama papa Lat Diop. yaa may dégg aw ma fayam. waaw di sant kilifa diine Mansour Lo maa ngi koy sant. doomu xadam loo di sant Fallou sama doomu ndey di sant Bamba Bamba laveur sant Njaga Njaga teer waa Gunaas ñëpp aw ma seen fay sama mafia bi marché Xelkom aw ma seen fay di sant Jabel sama électricien maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal tan sant waa marché Xelkom fépp fu supporteru bébé Elton ne maa lay sant di la gërëm aw ma fay di sant waa Gunaas waa Gunaas sama gaay yëpp di sant Muntaga bu baax di sant béy di belal di sant la Diop ay Aïdara di sant waa Guédiawaye ñëpp di la sant di la gërëm di sant sa soxna barki yonent bi kenn du yow yow suma xarit nga jaajëf bëgg naa doomu ndey bébeel to yaa woon mooy borom laam eh door ba mu gas ba mu xool moo yor peel bu ndaw bi peel bu ndaw bi <laughs> loolu jaarul